sëñ ñu ngi ni àndal soxna Amy Sylla ndongo sëriñ Chouaïbou njaareem kër sëñ Bay Sarr waaw seet si xalifaam ñu fi nekkal dama dama ñaar laa bëgg a doxal ko te xëy na moom jur gi yóbbu ko muy maam Aliou Seck ak maam Babacar Sarr xam nga maam Baye Moussa Gueye bi nekkoon fii Moussa Gueye waaw Baye Moussa Gueye waaw doon sama xaritu Baye lool oh. maasa jamono. ma hmm. am na ku mu tuddee sama yaay ku tudd Fatou Diop. Hmm. waaw. waaw kon di ko tuddee doomu hmm. gaañu. moom mu tuddee ko amaat yeneen doom tuddeewaat ko mu ne ma damaa a. dugg toog bu baax. ma doxal ma gis naa la ma joxe loo xam ne da ngay toog tuuti a amati ko lool ci ñu baax ñi dara ndax ñu ko dootoo bëgg am seen i njeexital. man mi maa ngi waay jël seen i place. waaw léegi nag man fii daanaa fi ñëw. ay jamono di dox ay jéego yu mel nii sama coobare bopp. di ko ko wan. man mosu ko mm-hmm. la yoroon sax ñaari waaye ngir ni koy tëggee fii. waaw moom mosu ko gis ci jamono bi ñu nekkee ci la ma naan ko filmé di ko ko yónnee. waaw ba bis bu ma benn doom daa ma jógee Dakar yebal ko ci bisu tabaski. Mm-hmm. ñu doon yóbbu matt ci mu jël ko. Mm-hmm. loolee nag nekk ci moom jeexital mu ne man day jaari boo ko mayoon daal bëgg naa appartement loo xam ne. comme man ma gën sax dama ma woo téléphone sama oto bii laa leen dem seetlu ma jeexit maa may saa ko xam ndax digg ma sëriñ ci ñoom ndax nee dafa dégg ñu dafay ñëw ñaari yoon. waaw dafa ñëwoon ci sëriñ bi. sëriñ bi ba yebalaat ko mu dem ba sëriñ bi jógee kaw mu dikkaat. te nee na loolu xam fu mu ko jëlee suuf suñu waxee mu ne suuf soo jël am na lu ñu tuddee waaye leeru ko. suuf soo mooy suuf.